Amani ala sunu borom nee na ku ma jaamu may sa boor sunu borom nee na ku ma jaamuwul may sa boor sunu borom nee na àjjana man dong maa ko am sunu borom nee na sama àjjana ku ma jaamuwul du fa man ci saa bopp li ma leen ciy dollil man Ahmadu mooy jaamu leen yàlla jaamu leen yàlla sa bopp laay jaamul yàlla jaamu lu ma leen yàlla jaamu leen yàlla saa bopp laay jaamul yàlla jaamulu mu leen yàlla jaamu leen yàlla saa bopp laay jaamul yàlla yow man xiyaamati du ma fa taxaw di layoo kenn mbaamay layoo di layal kenn mbaamay layoo kenn ñaari baat la ma sama borom di laaj fa muy taxaw fa muy taxawal boroom jamono yëpp bu ma ko taxawalee ne ma Ahmadou na nga def ak jaam ñi ma ne ko bind naa wan leen wax naa ñu dégg gis naa ñu gis. <laughs>